Watch it, watch it, watch it, watch it, watch it, watch it, watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch.

loo yëg loo yëg Guy gi néew ndey xapoo saafara yi tamit Vai, vai. taxawaay boo xam ne mbër ndam rek moo ko jig. kii rek la ñuy ndam rek a jig mbër. mbooloo mi ko topp bari am nañ doole. xale yi génn si nañ wan ko ni ko ñun yaay suñu mbër. xale yaa koy woyal. mbër a ngi départ di dem. xale yi pare bëgg ko. di wax léegi ci kon bi ñëpp a génn ñëpp a génn ñu koy wéyal buur yàlla ñu koy wéyal buur yàlla buur yàlla lañ koy wéyal ñu ngi lay ñaan yàlla na ko yàlla may ndam lañ koy ñaanal fa tabaarakallaahu sama xaali xil sama xaali xil ak sama basu borom yëngal yëngu na teg naa kenn desul tey jàpp nañ ni mbooloo mi topp guy gi bu ñu yeggee stade stade toj dañuy dem dóor ko ñibbisiwaat ci bàkki borom Touba surtout ñu benn ñu ànd ak koo xam ne topp dara lu dul caga yi kuy topp caga duñu daan ndam rek dañuy liggéey dañuy teel a xëy du guddee wàcc topp ñu kuy topp caga moom moo nekk noonu di bi nga xamante ni tuuroon na gàllaay yi kër bi moom ngeen gis noonu muy saraxe la yàlla dàkk nañ la yàlla yéen na nga ñëpp si jàmm ak ndam billahi wala waaw comme mécanicien ngeen mbooloo bi nga xamante ay citron ci kaw